aousubillahi min asheytan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki Tuubaa ci kanam nooru daare ni ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax fas yéene nag ñëw ak yéen ci li nga xam ne moo dugg ci Tuubaa ci kanam ci mois de août bi commission de finances jour commission gestion de fonds ci mois de août bi dañ koy tàmbalee ci zone nationale zone nationale ñi ngi koy tàmbalee ci dëkk bii di Touba euh, Touba ci weeru mois d'août bi dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog soixante-dix-huit millions cent cinquante-deux mille deux cent douze francs Mbàkke Bawal lañ ciy teg dugal nañ ci keesu Touba ci kanam Adja Dior Gueye Soxna mbenn Mbàkke Moustapha lu tolloog un million ak 1000 francs ak million bu teg 1000 francs Dakar ba bàyyi Serigne Bousso ak Serigne Alaaji Ndaw dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog 17 millions 900 2200 francs Mbar soxna Ndaak Seck soxna Ndaak Sëy dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog 50 000 francs Tamba sëriñ Daam Ñas sëriñ aadama Ñas dugal na ci tubaa ci kanam ak ñi mu àndal huit cent mille francs Jurbel ci njiitu soxna Ndey Njaay soxna Xadi Gay alaaji Fàllu Lay ak soxna Daba Mbàkke dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu toll ci un million sept cent soixante mille francs euh, tiib soxna Xadi Jeng dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog soixante cinq mille francs kee dugg Serigne Modou Lo dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog quatre cent soixante deux mille francs ngaay ci njiitul soxna Maguette jiite ak Serigne Daouda Seck dugal nañ ci keesu tubaa ci kanam lu tollook deux cent mille francs euh, xombal soxna Xuma Touré dugal nañ ci keesug Touba ci kanam lu tolloog cent mille francs Thiès Serigne Mbaye Sall Islam ak soxna ak sëriñ Khadim Lo Gaydal dugal nañ ci keesug Touba ci kanam lu tollook cinq millions trois cent mille francs Tiwaawan Mamadou Diop ñoom dugal nañ ci Touba ci kanam lu tolloog deux cent cinquante mille francs bu dee Louga Serigne Moustapha Bassirou Mbuub ñoom dugal nañ ci weer wii ci tubaa ci kanam lu tolloog deux millions deux cent vingt mille trois cent francs euh, daayira Babul Ayaad yi Anjaam ñoom dugal nañ ci Touba ci kanam lu tolloog quatre vingt mille francs ci weeru mois d'août wi cey soxna Faatu Jabaay dugal nañ ci Touba ci kanam lu tolloog cent mille francs Yarawaay Yaay Faatu Jeng dugal nañ ci tubaa ci kanam lu tolloog cent mille francs Kébémer euh, Serigne Gora Sylla dugal na ci Touba ci kanam lu tolloog un million six cent soixante mille francs euh, Kaolack Serigne Moustapha Touré dugal nañ ci tubaa ci kanam lu tolloog trois millions francs bu dee Saint-Louis Serigne Rijdal Seck ak Soxna Rama dugal nañ ci keesu tubaa ci kanam lu tolloog un million bu dee Mbour Serigne moor soran dugal na ci Touba ci kanam lu tolloog un million cinq cent bu dee Bambey sëriñ Abdou Fall dugal nañ ci keesu Touba ci kanam ci mois d'août bi lu tolloog trois cent cinquante mille francs Goudiri Serigne Damba dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog quatre cent cinquante et un mille Kolda Serigne Moussa Sène dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog cent quatre-vingt-dix-huit mille francs war a soogi euh, soxna May Mbàkke dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog deux cent soixante-dix mille francs Matam Serigne Ndiaga Diouf dugal nañ ci weeru euh, keesu Touba ci kanam ci mois d'août wi lu tolloog soixante mille francs Ross Serigne Aliou Ñing Serigne Dame Sourang dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog cinq cent mille francs Bakel Jawara Njawara sëriñ Cheikh Anne dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tollook cent mille francs Fouta Mamadou Fadal Dia dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog cinquante mille francs bu dee Vélingara Serigne Mbacke Gueye dugal nañ ñoom ci keesu Touba ci kanam ci mois d'août bi deux cent soixante-dix mille francs bokki Jawa dugal nañ ci keesu Touba ci kanam jaare ko ci taalakan lu tolloog soixante-dix mille francs Daarul Muxti dugal nañ ci jaare ko ci soxna Musli Mbàkke lu tolloog soixante-quinze mille francs versement anonyme euh, jot nañ ci lu tollook deux millions cinq cent trente-quatre mille cent soixante-quatre francs Daaru Salaam Diouf Daaru Salaam Diouf Serigne Youssou dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog deux cent mille francs Daaru Gaye ci njiitul soxna Faati gay ak soxna Xadi Gaye dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog cent vingt neuf mille euh, Mudari Sëriñ Bachiru Ndiaye dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog cent mille francs Kër Massar euh, ci njiitul soxna Ndey Jaxate dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog cent quinze mille francs dëkk bu ñuy wax Fuuta Ndondo sëriñ Ousmane ja dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog quatre-vingt-cinq mille francs Taïf sëriñ Jibi Sarr sëriñ Jibi Sare dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog cinquante mille francs Rufisque Guy Murit sëriñ Maguette ja dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog cinquante mille francs Fass Boy ci njiitul Serigne Pape Fall dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog deux cent cinq mille francs Kafountine ci njiitul sëriñ Jëmb Cissé dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog cent mille francs dëkk bu ñuy wax Fouta Orko Jëri ci njiitul Serigne Massaer Gueye dugal nañ ci keesu tubaa ci kanam ci mois d'août bi lu tolloog soixante mille francs Koungheul ci njiitul Serigne Youssou dugal nañ ci keesu Touba ci kanam ci weer wi lu tolloog soixante mille francs dëkk bu ñuy wax Aéré Lao Fouta ci njiitu Serigne Khadim dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog douze mille francs dëkk bi ñuy wax Ngunjaan ci njiitul Serigne Modou Thiam dugal nañ ci keesu Touba ci kanam ci weeru mois d'août bi lu tolloog cent mille francs Rufisque KDPS soxna Khady Ndiaye ñoom dugal nañ ci keesu Touba ci kanam ci weeru mois d'août bi lu tolloog deux cent mille francs fi ñuy wax Carrefour Jarombe Serigne Modou Makhtar mbay ñoom dugal nañ ci keesu tubaa ci kanam lu tolloog cinquante mille francs Ranirou Serigne Souleymane Diagne verse na ci compte Touba ci kanam ci mois d'août bi quarante huit mille francs euh, njàpp ndal soxna Abi mbay versé na ci compte Touba ci kanam lu tolloog dix sept mille francs bopp Silla Serigne Ahmadou Bamba Silla versé na ci compte Touba ci kanam lu tolloog huit cent soixante-deux mille francs euh, Touba Kell Serigne Abdou Khoudous Mbacké versé na ci compte Touba kanam lu tolloog cinquante mille francs Colobane Soxna Thiam versé na ci compte Touba ci kanam lu tolloog trente-cinq mille francs Madina Touré Soxna Oumy Mbacké versé na ci compte Touba ci kanam lu tolloog deux cent cinquante mille francs Pout Ababacar Ndiaye versé na ci compte Touba ci kanam lu tollook cent mille francs li nga xam ne moom la banque yi daggoon ci Touba ci kanam te delloosi ko mi ngi toll ci cinq cent cinquante sept mille cinq cent cinquante francs kon li nga xam ne moom la Touba ci kanam nag dajale ci mois d'août wi ci biir Sénégal gi yëpp bàyyi ko ci reçu yi ak carte yi mi ngi toll ci cent vingt quatre millions sept cent cinquante deux mille six cent cinquante deux francs bu ñu ñëwee ci zone Asie Arabie Saoudite euh, Cheikh Seck ak Mamadou Gadiaga dugal nañ ci keesu tubaa ci kanam lu tolloog six cent trente quatre mille quatre cent quarante deux francs zone Amérique euh, Brésil Serigne Cheikh Ndiaye jëwrin dugal na ci keesu tubaa ci kanam un million cent cinquante deux mille francs États-Unis Serigne Chouaïbou Seck dugal na ci keesu Touba ci kanam cinq millions cent dix mille francs soo totaalee li nga xam ne moom la Touba ci kanam encaissé ci zone Amérique bi mi ngi toll ci six millions deux cent soixante deux mille francs six million deux cent soixante deux mille francs zone Europe Angleterre Serigne Fallou Diop verse na ci keesu Touba ci kanam lu tolloog sept cent cinquante mille francs Allemagne sëriñ Abdou Salam Faye dugal na ci keesu Touba Ca tolloog six cent trente mille cent dix sept francs Suisse sëriñ Njaga dugal na ci keesu Touba Kanam lu tolloog deux million deux cent trente mille cinq waa coordination Italie dugal nañ ci keesu Touba Ca Kanam lu tolloog dix huit millions cent trente mille deux cent quarante sept francs France coordination bu France dugal nañ ci keesu Touba ci kanam lu tolloog cinq millions neuf cent soixante mille cinq cent quatre vingt dix neuf francs bu dee Turc Serigne Abdoulaye Loum dugal na ci keesu Touba ci kanam lu tolloog cinq cent mille francs Espagne Serigne Malick Dieng dugal na ci keesu Touba kanam lu tolloog trois millions trois cent un mille deux cent deux francs Grèce Serigne Omar Dia dugal na ci tubaa ci kanam lu tolloog deux cent mille soo boolee li nga xam ne lépp moom la Touba ci kanam dajale ci zone Europe bi mi ngi toll ci trente deux millions deux cent vingt cinq mille sept cent quarante cinq francs bu dee ci zone d'Afrique bi euh, réew mi di Togo Serigne Assane Mar dugal na ci keesu tubaa ci kanam lu tolloog quatre cent cinquante mille francs Angola. Serigne Mamadou Ba dugal na ci keesu Touba ci kanam lu tollook cent soixante quinze mille francs Niger Mamor Diom dugal na ci keesu Touba ci kanam lu tollook cinq cent quarante quatre mille francs Mali Serigne Alioune Wàcc dugal na ci keesu Touba ci kanam un million trois cent quatre vingt cinq mille francs Afrique du Sud ci njiitul Serigne moor jeng dugal na ci tubaa ci kanam lu tolloog neuf cent cinquante mille francs Côte d'Ivoire Serigne Mor dugal na ci keesu Touba ci kanam lu tolloog deux millions deux cent cinq mille francs Gambie Serigne Khadim dugal na ci keesu Touba ci kanam lu tolloog un million cent quarante neuf mille francs Mauritanie Serigne Ibrahima Sarr dugal na ci keesu Touba ci kanam lu tolloog un million huit cent treize mille francs Gabon Serigne Pape Ciss dugal na ci keesu Touba Ca Kanam lu tolloog cent trente quatre mille cinq cent francs euh, Guinée Bissau Serigne Modou Atta Seck dugal na ci keesu Touba Ca Kanam lu tolloog huit cent quatre vingt dix sept mille cinq cent francs soo boolee li nga xam ne moom la Touba Ca Kanam dajale ci zone d'Afrique bi yëpp mi ngi toll ci dix million cent trois mille francs soo boolee nag li nga xam ne tubaa ci kanam encaissé na ko ci weeru mois d'août wi ci biir réew mi Sénégal ak bitim réew lépp mi ngi toll ci cent soixante treize millions neuf cent soixante dix sept mille huit cent trente francs ginnaaw bi ñu leen leeralee nag li nga xam ne moo dugg ci compte Touba kanam yi ci mois d'août bi ñu leeral leen décaissement yi mooy li nga xam ne jóge na ci compte Touba ci kanam yi jëm ci liggéey bi. ñu tàmbalee ko ci santé bu ndaam poste santé bu ndaam ci mois de août bi def nañ ci cent soixante dix mille francs euh, bu dee santé bu université bi nga xam ne Touba Ca Kanam jëloon na ko ci biir université bu Seexul Xadim bi def nañ ci lu toll trois millions six cent soixante quatre mille cinq cent francs euh, bu dee poste de santé bi nga xam ne moo nekk Touba Njaareem ci mois d'août bi def nañ ci lu tolloog un million quatre vingt huit mille 666 francs bu dee sànc daaru xadim muy poteau santé bi nekk daaru xadim ci weeru mois d'août wi def nañ ci 348 mille 250 francs commission santé bu Touba ci kanam ay dons yoo xam ne doon na ko jox yenn ci poste de santé ci dëkk bi muy poste de santé daaru Tansil poste de santé yoonu daaru ak euh, bu daaru Rahman matériel boobu toll na ci 9 millions un mille francs commission communication fere na ci mois d'août bi cinq million cent quinze mille francs euh, charge yi nga xam ne nag moo aju ci li nga xam ne moom la ñuy fay ci ñiy liggéey ci Touba ci kanam ci weeru mois d'août bi toll na ci quatre millions deux cent soixante dix sept mille cinq cent francs commission bi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàll bolog yi ak reçu yi ci Touba ci kanam euh, génn nañu tolloog un million deux cent dix sept mille francs ngir defarlu ay reçu ak ay bloc ci mois d'août bi boo ko defee bisse de fonctionnement mooy dépense yi nga xam ne dafay nekk lu jàmp lool loolu ci mois d'août bi joxe nañ ci lu tolloog un million bu dee commission environnement nag xam ngeen ne ci mois d'août bi ay liggéeyam dafa yokk ndax wàllu assainissement bi nga xam ne moom la tombeel ci dëkk bi ba tax na décaissé na lu deux cent quatre-vingt-quatorze millions neuf cent mille quatre cent cinquante francs Euh, commission logistique mooy matériel yi nga xam ne moom la Touba ci kanam di liggéeyee ci mois d'août bi décaissé nañ ci la tolloog 41 millions 832 mille 656 francs commission bi itam di réalisation dañ leen doon installé benn bureau fii ci siège Touba ci kanam bi ci mois d'août bi installation bureau boobu feree nañ ci un million 78 mille 150 francs commission réalisation machine bi nga xam ne jëndaloon nañ leen ko itam ci mois d'août bi muy machine mu pondeuse bi nga xam ne mooy fabriquer pavas yi ak mool yi fer yi nga xam ne moo koy moom lay àndal ba mu mën koo téye euh, décaissé nañ ci lu toll ak 3 millions 148 mille francs matériel bi nga xam ne itam Touba ci kanam jëndoon na ko mu jóge Italie ngir ñëw fii frais yi nga xam ne def nañ ko ci toll na ci 10 millions 115 mille 335 francs euh, frais bancaires yi te mooy li nga xam ne banques yi dagg nañ ko ci Touba ci kanam ci weeru mois d'août bi mu ngi toll ci quatorze mille deux cent soixante seize francs su ko defee nag euh, ñu ñëw ak yéen ci total décaissement yi mooy li nga xam ne lépp lépp lépp jóge na ci euh, compte Touba ci kanam ci weeru mois d'août bi loolu mi ngi toll ci trois cent soixante dix sept millions six cent quatre mille sept cent quatre vingt treize francs mooy li nga xam ne décaissé nañ ko ci mois d'août bi ci compte Touba ci kanam yi. bu dee lu jëm ci wàllu jaayante yi nga xam ne. murid yi doon nañ ko jaayante ci mois de août bi euh, liñ fa dajale mi ngi toll ci un milliard quatre cent six millions six cent quatre vingt mille soixante-dix-huit francs encaissement yi nga xam ne mi ngi bàyyikoo ci bolog yi ak reçu yi ci mois de août bi mi ngi toll ci cent soixante-treize millions neuf mille huit cent trente francs li nga xam ne nag moom la ñu décaissé ci mois de août bi ci Touba ci kanam mi ngi toll ci trois cent soixante dix millions six cent quatre vingt mille sept cent quatre vingt bu ko defee li nga xam ne moo nekkoon ci compte Touba ci kanam yi ci mois de juillet bi ñu génn soo ko xoolee mi ngi tolloon ci six cent trente-deux millions huit cent dix-neuf mille six cent vingt-huit francs solde net nga xam ne moo li nga xam ne nii moo nekk ci compte Touba ci kanam ci weeru mois de août wi exact mi ngi toll ci un milliard huit cent trente-cinq millions six mille sept cent cinquante deux francs mooy li nga xam ne moo nekk exact ni ci compte Touba ci kanam kon nag ñu ngi ñaan yàlla sunu borom yàlla na nangu jëf ji te gërëm ko te bégloo ci sëñ Touba wa fi zalika falyatanafasi l mutanafisun li misli haasa falyaamali l aamiluun wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh